waaw xanaa ñaanal ñëpp jàmm rek di ñaan ci réew mépp jàmm àddina bépp di ñaan jàmm képp koo xam ne bëgg nga jàmm yàlla na la yàlla may jàmm te nuy lu di tuub di sàkk sarax di julli bu baax a baax a baax di sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax la loolu nu mën a may jàmm kat yàlla nañu ko yàlla boole képp koo xam ne bëgg nga lu baax saxal ci lu baax te fas yéene fonk julli bu baax a baax a baax di ko farataal di ko def ku ko def daal da nga mucc ku neexee yàlla yonent bi na ma yàlla baal noo ko fi mën a jëlee ndax li ñu ko fi mën a jëlee mooy yàlla ci boppam moo ko wàccee ndax gannaaw docteur yi nee na ñoom xamuñu lu koy faj président xamu ko ministre bi xamu ko kenn xamu ko yàlla rek ko ko xam nun ñi nag li nga xam ne moom lañ ko xamante noo ko fi mën a jëlee mooy delloo lépp ci yàlla sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax jéggalu yàlla bu baax di julli di sàkk sarax ti dimbalante lii daal buñ ko defee yàlla danañu dimbali mu jóge fi ci jàmm yàlla yàlla nañu yàlla dàqal jàngoro ji ci lu gaaw a gaaw a gaaw tey ñaan ci at mi at bi moom bi neexee yàlla yonent bi dana baax dana neex lool yàlla nañu ko yàlla defal na boole ko te fekkee ko ñooñu nag kilifa diine yi lañu war a gën a mën a ñaan ci seen bopp ñu ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi te baax ndax ñu baax rek la ñuy digal suñ leen toppee dégg seen ndigal bàyyi seen tere bu soobee yàlla lu baax rek la ñuy am ndax kenn ku benn kilifa diine boo xamante ne bii ah, doon na murit mbaab tijaan mbaab xaadir mbaab la te nga xam ne mu ngi la asadoon laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nun ñëpp benn lanu koo ci gis na ko def ne sa baay bi la jur wala sax nga placé ko lu gën a fort sa baay bi la jur def ko ne yàlla nga gis wala yonent bi nga gis sallallahu alayhi wa sallam buñ jógee di sànnante xeer naan nit ki nga di ko def comme ah, te nit la comme yow bokkunu de ndax am na ñoo xam ne ndax fi mu ne am na ñu mën a toog fii di gis loo xam ne lii yow doo ko gis te loolu loo am la am na ñu nag gëmuñu loolu waaye loolu am de am na ñoo xam ne ñu bonoon tàngaloon seen xol léegi léegi lii wallaay balaa jant sax di nga xam ne lépp dëgg la. waaw nan dellu ci yàlla te di ko jaamu bu baax a baax koo gisati def ko ne rek nit ku baax la boo ko jàppee nit ku baax fonk ko bu baax loo ko mën a dimbalee te yàlla tax def ko ba doo ko rek. man nag jullit laa ñaanal ñaanal naa ko yàlla na ko yàlla may njéggalu àdduna ak àllaaxira yàlla na yàlla taxaw ak njabootam yàlla na képp koo xam ne kii mbas mi rey na la ak ku réyut yàlla na la yàlla may njéggal barke Muhammad sallallahu alayhi wa loolu daal laay ñaanal ñëpp yàlla na ko yàlla defal waaw